jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal gannaaw bañ leen nuyoo rafet lu ngeen di toppee suñu chaîne bi ngeen informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew tey seen acte du jour dañ koy doore ak kii di Thiaba nekk doom ci Fatmata Ndiaye Fouta Tampi moom Thiaba nag ak yeneen yu mu def mu doon ay révélation yu yees loolu nag daal di jëm rek ci ki nga xamante ni sax moom moo di Serigne Dramé mu jàppee ko sax ne moom mooy marabu bu Ousmane Sonko ci euh, loolu nag moom Thiaba daal dinay rek def ay révélation wax rek ci ki nga xamante ne euh, moom moo di euh, Serigne Dramé moom nag muy wax sax naan kii di Serigne Dramé daal dina koy fekk rek foofa ca diwaanu moom nag daf ko daal di tëddee sax ci loolu Thiaba ba léegi rek muy wax rek naan daam sax ñoo xamante ni dañ ko daal di rek jàpp sax ci loolu rek moom Thiaba muy wax sax naan manqué wul dara foofu mu nekk rek waaye. du am liberté pour daal di génn rek mu doon ay révélation yoo xamante ni sax daa am ñoo xamante ni gannaaw kàddu yam wax ne ñoom ñoo daal di nekk ci ginnaawam rek di ko daal di waxloo waaye nag ñu daal di nemmeeku rek ab contradiction sax ci discours am gannaaw ba nga xamante ni sax daal di nay wax rek ci ki nga xamante ne moom moo di Serigne Dramé mu génnaat dal di rek weddi li ni mel weddiwaat kaddu yooyu sax nga xamante ni daal dina koy wax rek mu mel ni a am ñoo xamante ni ñoom ñoo daal di nekk ci ginnaawam rek ngir rek daal di fexeel ki nga xamante ne moom moo di Serigne Dramé ci loolu nag kii di eh, Serigne Dramé daal dinay add rek ci li ni mel ak sax lool nga xamante ne caba daal dina ko koy taqal rek moom Serigne Dramé nag mu daal di jàpp ne sax ne ay nit rek ñoom ñoo ko daal di bëgg a fexeel rek jaarale ko ci ki nga xamante ne moom moo di caba nekk doom ci Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi waaye nag moom Imam Dramé muy leera rek daan di wax rek naan mënuñu ci moom dara kon nag kooku di caba ak sax kàddu ya nga xamante ne daal dina koy yëkkati rek def ci moom ba noppi diwaat li ni mel wax sax ñi nga xamante ne ah, ñoom ñoo koy waxloo wala sax di ko defloo mu jàpp ne sax moom Serigne Dramé ah, dañ ko daal di bëgg fexeel la wax ci leneen kii di Fanta Seydi nekk ci seri famille sénégalaise moom la ñuy gis noon rek mu nekk une très belle femme moom nag bëriwuñ sax luñ koy gis rek muy publier ay photo rek ci réseaux sociaux yi waaye nag bi yoon daal dinay def rek li ni mel moom Fanta Seydi nag nekk ab actrice boo xamante ni ràññee nañ ko bu baax a baax foofa ci série famille sénégalaise beneen actrice ci série Virginie Kiné lay wuyoo moom nag mu nekk une actrice boo xamante ni euh, mën lool lu muy def récemment nag ñu gis rek ne am na taxawaay bu baax a baax ci réseaux sociaux yi gannaaw nag série bi nga xamante ne mu ngi ci mu nekk production bu Marodi moom euh, kii di Kiné nag am na taxawaay bu baax a baax ci réseaux sociaux yi. wax ci la femme de Wally Ballago Seck di Soxna Aydara moom la ñuy gis noonu rek toute belle toute ravissante moom Soxna Aydara euh, gëjoon nañ koo gis lool mu daal di publier rek. ay euh, photom ci euh, internet bi euh, mu mel ni sax koo xamante ni lii di réseaux sociaux yi bëriwul sax loo xamante ni rek daf koy daal di fréquenté waaye nag bi yoon gis nañu rek mu daal di publier rek ay photom moom Soxna Aidara mu nekk koo xamante ni tamit gëjoon nañ ko gis lool ci lii di internet bi. kii di Mbodj Mbaye nag gannaaw ba nga xamante ni sax yenn rek ci ay discours am ci ay plateau day daal di jëm rek ci wax yoo xamante ni sax dañoo daal di jàpp ne rek day pervertir ñii di jeunesse bi waaye nag mu mel ni ab tiktokeuse rek daal dinay osé dal ci kawam wax nag ki nga xamante ne moom moo di Mbodia Mbaye tiktokeuse bi nag mu jàpp ne kii di Mbodia Mbaye kàddu ya nga xamante ni sax daf koy daal di yëkkati rek day daal di rek yàq ñi nga xamante ne moom moo di ndaw ñi ndax kat waxtaanam yëpp mbiru sexe la loolu nag daal di nekk loo xamante ni baaxul ci société mu jàpp ne sax ne am na leneen loo xamante ni war nañ ko mën a jàngale rek bu ñu toogee ci les plateaux de télévision waaye a dafa daal di nemmeeku ne kii di Mbodj Mbaye saa yu toogee rek ci plateau yi waxuy pervertir jeunesse bi rek lay wax Ngaaka Blindé daal di nay nekk rek en toute complicité ak ñi nga xamante ne moom moo di xaritam yi gannaaw nga ma nga xamante ni sax jóge na ci clash am ak bi di Akhlou Brick moom Ngaaka nag ah, mu de bon moment ak ñi nga xamante ne moom moo di xaritam gannaaw nag ba nga xamante ni ah, ñu ngay fo sax rek ci ab serpent boo xamante ni daal dina koy rek lëmasu moom rappeur bi di Ngaaka Blindé waaye nag ab peur sax la ñuy daal di nemmeeku rek même bu fekkente ne sax mu ngi koy jéem a rek tiital ki nga xamante ne moom moo di xarit ba waaye mu mel ni nag moom Ngaaka Blindé moo gën a ragal jaan ñëpp waaye ki di DJ Kheucha nag mu nga woon ca kër ngaka Ngaaka Blindé ñu daal di nekk rek toute complicité di dund seen bégte bu baax a baax gannaaw clash yi nga xamante ni sax jiboon na ba daal di mayoon rek hip hop bi ab buzz boo xamante ni groupe Akhlou Brick ñoo ko waraloon ak rappeur bi di Ngaaka Blindé wax ci beneen rappeur néew bi lay wuyo moom nag gannaaw ba xamante ni daal dinay marqué rek ay empreinte am ca année deux mille mu nekk rappeur boo xamante ni tamit ay kàddoom nekk na ab jàngale waaye nag mu nekkoon koo xamante ni tamit gëjoon nañ ko gis lool waaye nag retrouvé waat nañ ko grâce à l' animateur Pape Sidi Fall mi nga xamante ni moom moo demoon seeti ko rek seq ak moom waxtaan wu yaatu rappeur bi di néew bi nag ak kàddu yi am solo yi nga xamante ni sax jot na ko waxtaan ak. ak Pape Sidi Fall ci loolu nag ab collecte sax lancé woon nañ ko rek ngir daal di dimbali rek ki nga xamante ne moom moo di néew bi rek ci jafe-jafe nga xamante ne moom moo ci nekkoon mu mel ni nag. collecte ba daal dinay antu dajale nañ lu toll ci ñeenti million loolu nag annonce bi kii di Pape Sidi Fall moom moo ko daal di def ci page Facebook am ñu daal di koy jébbal rek rappeur bi di néew bi. faatu ware ak DJ Box ca i rajo euh, suba su jot ñuy amal rek émission xorom si na loolu nag daal di nekk ab duo boo xamante ni sax daal nañ koy nemmeeku bu baax a baax kii di Boubs nag euh, daal di ci ànd rek ak ki nga xamante ne moom moo di euh, Fatou Waré waaye nag Fatou Waré kaddu ya nga xamante ni rek daf koy yëkkati ba nga xamante ni sax kii di Boubs mënatu ko muñ jëm nag ci ki nga xamante ne moom moo di première dame di Marième Faye Sall Fatou Waré nag ak kaddu ya nga xamante ni sax yëkkati na ko dem bay comparé rek Marième Faye Sall ak Rihanna waaye nag mu mel ni DJ Boubs mënatul muñ li ni mel bi nga xamante ni am na ci digganteem ak Fatou Wari ak ambiance bi nga xamante ni rek mu koy andi foofa ca i rajo gannaaw ñu daal di koy ngénte rek moom Kati Chimère mu daal di amoon sax doom bu góor mu mel nag kii di sëram bi tamit daal dinañ koy ngénte rek fan yi ñu génn moom tamit mu daal di am doom bu góor loolu nag daal di nekk ngénteelu neex loola mu nekk sœur ci Katy Chimère ñoom ñaax nag ñu daal di leen ràññee woon bu baax a baax sax ñu nekk ñoo xamante ni tamit amoon nañ taxawaay ci li nga xamante ne moom moo di milieu cinéma bi waaye nag jamono ji nemmeeku nañ kii di Katy Chimère elle est beaucoup plus concentrée dans son ménage xanaa rek di ko ñaanal jam moom ak sœuram bi rek ci seen baptême bi nga xamante ni sax daal di nañ ci génn rek doom yi daal di dund te kii di Balla Gaye 2 gannaaw face à face ak Boy Niang Sa tamit jamarlo woon ak kii di Reug mu mel ni nag Balla Gaye mu nga nekk ci otoom ak ki nga xamante ne moom moo di Sa Thiès di rakkam waaye tamit Ndiogou Mbaye l'ami fidèle de wali Ballago sek mu nga woon ca oto ba muy tooñ rek saaxo saaxo yi ci seen face à bi nga xamante ni sax daal nañ ci génn rek moom Ndiogou Mbaye ñu daal di koy gis tamit mu daal di proche trop ci ki nga xamante ne moom moo di. Balla Gaye ñu daal di nekk ay xarit loolu gannaaw nag ñu jógee ci bile face à face rek ñu ngay promenade rek nekk ci seen woto. ci euh, face à boobu ba tey sax kii a Balla Gaye 2 nag daal di andi beneen xaar kanam gannaaw ba nga sax. il y a dix ans de cela bi mu daje woon rek ak kii di Tyson waaye nag signature contrat ba ñu gisoon ca Balla mu mel ni nag beneen la ñu daal di gis ci digganteem ak Boy Niang Balla la mu amoon habitude rek di ko wax ay adversaire am mu mel ni nag lu ko raw la ko Boy Niang daal di wax rek Balla Gaye nag ni ki keroog ca signature contrat ba dafa dal di taxaw rek di déglu Boy Niang waxul benn yoon daal di a andi beneen xar kanam kii di moo géet nekk foofa ca diwaanu États-Unis comme promoteur tamit euh, businessman di yëngu ci lu euh, bëri moom nag mu nga yëkkati rek ay conseil di ko jox rek euh, migrants africains yi nga xamante ne ñoom ñooy dugg foofa ca États-Unis di wax sax ne bu ñu am complexe rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo di nit ñu weex ñi lépp loo xamante ni rek liggéey la tamu wóor la rek liggéey bu fiable la mën nga cee dugg te daal di koy def ànd ci sa fulla ak sa fayda loolu nag nekk ay conseil yu baax yoo xamante ni kii di Mo Gates mu ngi koy jox rek mbokk migrant africain mi yenn événement religieux yi nga xamante ne mu ngi am fii ci Sénégal mu mel ni kii di Ahmed Khalifa dal daal dinay xaatim rek ab bataaxal daal di koy rek jagleel événement yooyu sax nga xamante ni événement religieux lañ ko daal di jàppee moom Ahmed Khalifa Niass nag ak moo ya nga xamante ni sax daal na ko cay utiliser rek daal di dem sax bay comparer rek yenn événement ak carnaval de Rio mu doon ay kaddu yu doy waar yoo xamante ni gannaaw bataaxal bi nga xamante ni daal na koy xaatim rek mu daal di koy fësal rek. rek jëmal ko sax ci événement réalisé yooyu noonu waaye tamit daal di basé wu rek ci yenn cool ka yoo xamante ni daal nañ koy nemmeeku rek ci jigéen ñi bu ñuy dem rek ci yile événement moom nag mu jàpp ne loolu du dëgg du yoon tax sax ba mu daal di xaatim ab bataaxal rek wax ci lu ko neex bind ci ay mots yu doy waar yoo xamante ni sax daal dina koy jagleel rek yile événement comparé ko ak carnaval de Rio. wax ci gàmm gi ñu génn kii di oustaz Mouhamed Mbaye nekk ca diwaanu Sen TV moom nag daal di nay mer ba futu lool loolu nag jëm rek ci yenn ci ay événements yoo xamante ni sax nit ñi nu leen rek lañ koy daal di tuddee jëm ci sax ba ci gàmm gi nga xamante ne am na ñuy yëkkati ay kàddu rek di wax naan ay bidaa la moom oustaz Mouhamed Mbaye nag mu mer ba futu lool ci ñi nga xamante ni sax dañuy wax naan gàmm ab bidaa la mu dem si sax ba naan ñi nga xamante ne dañuy wax li ni mel dañ leen a war a rey. lool nag nekk loo xamante ni lu doywaar waar la jëm rek ci yenn ci ay événement religieux yi nga xamante ne ah, moom mooy daal di am waaye nag bu mu jógee ci loolu moom ah, oustaz Mohamed mbay ak sax la mu tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jëmmal ko tamit ah, ci ki nga xamante ne moom moo di Seydi Haj Malick ci li nga xamante ni sax moom moo di guddi gi ñu génn mu nekk guddi goo xamante ni nag ñëpp daal di nañ koy màggal rek ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp mu daal di nekk mawludu nabi nekk loo xamante ni tamit événement la boo xamante activité yëpp ñoom ñoo ko daal di célébré tàggat yaram la ñuy jeexale wax ci Sadio maane ni ki tey nag Bayern ak Victoria Plzen Bayern nag daal di na koy dóor kii di Sadio maane nag daal di dugal ci loolu nag mu daal di am sax deux centième but en club loolu nag daal di nekk ab record boo xamante ni sax moom Sadio maane daal di na koy def rek deux cent buts en club nekk loo xamante ni tamit lu doy waar la moom doomu Sénégal bi di Sadio Mané daal di wanewaat taxawaayam bu baax a baax ci club ba mu nekk. di Bayern de Munich coupe du monde prime bu gaynde yi daal dinañ koy xam mu ngi toll rek ci sept milliards de francs CFA loolu nag mu nekk prime boo xamante sax dañ koy jagle rek ñii di Lions yi waaye nag en cas de victoire prime ba nag dina toll ci vingt milliards de francs CFA. mbokk yi safandoon ñu teewlu lii lañ leen andi loon seen acte di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi talaal cloche notification bañ a raté dara suñu